julli ci ay ñooñam ak saxaabaam del si nañ tey ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen firim téere ñi ngi woon ci risaala ibnu abi zaydin alxayrawaani ci baabu maa yajib minul wudu jàngoon nañ li nga xamante ni si mooy dugg bopp sacré li muy waral jàngoon aju ci wàllu googu tey nag ñu ngi fas yéene jàngale mooy dan moo aju ci wàllum jigéen lu mbërëgam daggee maanaam mandargaay laabtaal la ñuy jàngale tey sunu darsu bi mu ne wa izaa raat ndem gis na moom jigéen wala wa izaa raat ndem gis na almaratu jigéen al alqasata ñooy albayda abaya ji weex tataxara na dem sangu ji wa kasaalika ni ki noonu izaa raat ndem gis na alji foofu fenn pay na dem sangu ji makaanaha ca barab ba wala ca saasa mu ne jigéen si gisee li nga xamante ni si moom mooy fenn pay na dem sangu ji wala mu gis li nga xamante ni si moom mooy ñooy ñooy nag si koy waxee moom dafay génn lu weex tàll loo xamante ni dafay génn ci ginnaaw ba jigéen ji amee mbërëg ba am dem ba dagg ginnaaw ba mbërëg ba daggee ci lay génn waaye dafa mel ni leso dafa mel ni ciment boobu nga xam ne dañ koo lakk mu weex tàll leso lay niroog loolu moom mooy ñooy ñooy googu su ko jigéen gisee wala fenn pay rek su boobaa na xam ne laab na mu dem sangu ji su ko defee nag la nga xamante ni si moom moo nekk ay waajibaat maanaam lu ko war mu dem defi ko mu ne tanbihaanin lii ñaari yeete la wala li tanbihaanin lii ay yeete bu njëkk bi zahiru kalaam musannifi lu feeñ ci waxi taalifkat bi a ah, ne na istawa waaye yemoo ne xalaamatay ni ñaari mandarga yi fi xaqil muxtaadati ci àqi ku ko baaxoo gis moom bërëg wal mubtadaati ak ku koy commencé gis mu ne walay sa nekkul mbir mi ko comme noonu mu ne bi ñu xoolee lu feeñ ci waxi taalifkat bi mooy dafay mel ni ñaari mandarga yi nga xam ne ñooy waral li nga xamante ni si moom mooy sangu mooy dafa mel ni ñaari mandarga yooyu dafa mel ni ñaari mandarga yooyu ñoom ñoo bokk atte waaye demee demeewul noonu am na différence tuuti am na wuute am na différence tuuti am na wuute mu ne ball fi nekk alxasatu ñooy ab moo gën a jotal mu ne ñooy moom moo gën a jotal li nga xamante ni si moom mooy fenn mpay jigéen bu fekkee dafa gis li nga xamante ni si moom mooy ñooy rek su boobaa na jàpp ne set na wecc te ñooy googu mooy li nga xam ne moo gën a matale ñooy nag ginnaaw bu mbërëgam daggee ci lay ci lay ñëw mu ne fukk lu man képp ko xam ne raat ha gis na ko moom ñooy tatahara na dem sangu ji sari an ci lu gaaw walla tantazir bu mu xaarandi ko aljufoofu fenn mbay laa wujoo bandu caageen lu war wala nat bandu caageen luñ sopp walaw ihda walaw dat u walaw ixti da walaw ixta dat u donte ku ko baaxoo gis la donte ku ko aadoo gis la mu ne bu fekkee nit ki dafa gis li nga xamante ni si moom mooy ñooy su boobaa bu mu xaarandiku lenn na dem sangu ci sangu ji ci nu mu gën a gaawee bu fa nekk sax naan day xaar li nga xamante ni si moom mooy fendim pay mu fa xaar li nga xamante ni si moom mooy fendim pay donte jigéen googu ku ko aadoo gis la ndax ñooy dafa nekk loo xam ne moo gën a jotal seen di mu ne waa ama mantra at waaye nag ki nga xam ne gis na aljufa fenn mbéy awaloon ci commencement feeñ kaa dem nekk na muxtaadatan ku ko baaxoo gis alxasata ñooy aw xiya wala ñooy wal jufoof ak fenn mbéy fa noonu ak moom yustahabu danañ sopp laa ñeel ko intizaaril xasata mu xaar li nga xamante ni si moom mooy ñooy li àqiril muxtaar yi jëm ba si mujj waxtu wa moo ne bu fekkee waa jigéen gi si boppam moom lu mu baaxoo gis moom mooy ñooy kase wala sax ñooy ak fennimpay lay gis su boobaa nag su njëkkee gis li nga xamante ni moom mooy ñooy rek su boobaa mën na mën naa dem sangu ji mën naa dem sangu ji niki noonu tamit bu fekkee ne fennimpay la njëkk a gis nag su boobaa faaw mu xaar ñooy ba ca mujj muxtaar waa te mooy mujj waxtu wa su demee ba waxtu waa jigéen daal su gisuñ ñooy mu doo dem sangu ji waaye nag bu su ko gisee mooy li nga xamante ni si mooy li gën a matale kon ñooy la war xaar bu dee ki nga xamante ni si mooy ñooy rek lay gis wala mu baaxoo di gis fenn pay ak ñooy kooku moom su njëkkee gis fenn pay faaw mu xaar ñooy waaye bu gisee ñooy moom du xaarati li nga xamante ni si moom mooy fenn pay ñooy nag nee na la boo ko gisee du nekk loo xam ne lu ñu soppale ci yow wala lu war ci yow ngay xaar li nga xamante ni si moom mooy fenn pay bu dee ku xaar woo gis la kon leeral nañ ki nga xamante ni si moom ñoo rek lay baaxoo di gis kooku moom bu ñëwee rek dafay dem sangu ci xam ne set na ki ni dafa baaxoo di gis nag ñooy kese wala ñooy ak fenn mpay la boole di ko gis su boobaa moom su gisee fenn mpay faa mu xaar ñooy waaye bu gisee ñooy nag moom du xaar fenn mpay dafay dem sangu ji rek dem julli ji mu ne waa maaman daa waaye xam ne raat gis naal ji foofu fenn mpay awalan awalan ci commencement fa inkaan dem nekk muxtaatalan xasadi ku baaxoo gis ñooy aw xiya wala ñooy wal ak fennim pay fe noonu ak moom istaabu soppane laa ñeel ko intitaaral xasata mu xamante ni si moom mooy ñooy li axiril jëm ba si mujj waxtu wa mu ne waa ki nga xamante ni baaxoo naa gis al ji foofu fennim pay faqat dong isa ataha bu ko dikkalee moomu falaa yunta ba duñ sopp loo intisaari intisaari mu xaar li nga xamante ni si moom mooy ñooy ki nga xam ne nag moom seen ni rek rek rek la baaxoo gis kooku moom su demee ba nga xam ne fenn mpay mi dikkal na ko su boobaa jaratu mi xaar ñooy comme mu gis ci ñoom ñaar bu mu njëkk gis ci ñoom ñaar rek dafay dem sangu ji te xam ne laab na ndax moom ñooy rek la fenn mpay rek la baaxoo di gis kooku bokkut ak ki nga xam ne dafay gis ñooy ak fenn mpay bokkut ak ki nga xamante ni moom fenn mpay rek lay bokk te ki nga xamante ni ñooy kese lay gis moom fenn kese la jagoo kon su boobaa su njëkk gis fenn pay du nekk di xaar ñooy dafay sangu ji dem julli ji amaa nag bu dee koo xam ne nag moom ñooy kese maanaam fenn pay la daan gis tey mu njëkk gis ñooy noonu rek lay def dafay dem sangu ji dem julli ji ñooy moom jàpp si benn takk-takk mooy foo ko gisee rek bul xaarti fenn pay demal nga dem sangu ji dem julli amaa bu dee fenn la nag fi nga xamante si mooy fi nga fi maam jigéen fi nga xamante ni foofu lay pëyam di fendee nga xam ne du xaar ñooy mooy bu fekkee ne fenn pëy kese la baaxoo di gis amaa bu dee ñoom ñaar ñëpp la baaxoo di gis nag ah su njëkkee gis fenn pëy dafa dem sangu dem bu ne ñooy la gis nag faaw mu xaar fenn faaw maanaam bu fekkee fenn pëy la gis faaw mu xaar ñooy ba ca mujj waxtoo bu dee ñoom ñaar la baaxoo di gis wala mu baaxoo di gis rek li nga xamante ni moom mooy ñooy mu ne wa amaal mubtadaati waaye ko commencé gis nag fal muxtamit lañ sukkandikoo an naa naka moom te taxara ne am sangu ji bi kullun ci képp minuma ci ñoom ñaar bu na jigéen joo xam ne jigéen ji commencé gis mbërëg la nag moom su boobaa kooku xamugul ñooy lay njëkk a gis wala fenn mbéy moo tax bu gis si ñoom ñaar rek dafay dem sangu ji dem julli ji su njëkkee gis ñooy nga xam ne laab na mu dem sangu dem julli ji su ko defee ni ki doon tim bu fekkee ne fenn mbéy la njëkk a gis mu xam ne laab na mu dem sangu ji dem julli ji ndax kooku amagul xaada kon teqale nañ naka la fay deme moo xam fenn pay la wala ñooy lu ci aju woon ñu gën koo teqalwaat mu gën a leer ki nga xamante ni si ñooy rek la baaxoo di gis wala mu baaxoo di gis ñooy ak fenn pay su boobaa kooku saa bu gisee ñooy rek bu mu xaar dara dem sangu ji dem julli amaa nag bu fekkee ne dafa njëkk a gis fenn pay ah dañuy bëgg mu xaar ñooy ba ca mujjug muxtaar ma ba ca mujjug waxtu wa su ko defee bu demee ba ca mujjug waxtu wa bu ñooy génnee mu sangu dem julli bu génnut mu dem sangu ji dem julli ndax ñooy la doon xaar ba ci mujj muxtaar ma waaye nag lañ ko mayoon mu xaar ko jeex na su boobaa dafay sangu ji dem julli ji ni ki noonu tamit bu fekkee ne koo xam ne moom seen bay rek la baaxoo di gis kooku moom bu njëkkee gis fenn pay dafay sangu ji amaa nag bu dee tamit ñooy la njëkk gis dafay sangu ji kon kooku ki nga xam ne fennimpay rek la baaxoo gis ko moom bu gisee fennimpay rek su boobaa dañ ne ko xaaral ñooy jëratul meen xaar ñooy na dem sangu ji dem julli ji ni ki doon tamit ñooy moom nee naa la takk-takk ba ca nekk rek mooy bu ko gisee moom bu ko njëkkee gis rek dafay sangu ji te xam ne laam na amaa bu dee koo xam ne nag moom kii commencé gis mbërëg la kooku moom bu gis si ñoom ñaar rek dafay sangu ji dem julli ji bu dee ñooy la njëkk a gis sangu ne julli ji bu dee tamit li nga xamante ni moom mooy fenni mbay dafay sangu ji te xam ne laab mu neen lay sa nekkul xalal mar at wat jigéen an tax basa mu gës xan alaamatu tuxri xan alaamatu tuxri ci màndargaay laabam ida tawaxamat bu defee inqitaahu aydiha daggug déretu mbërëgam ila xenda nawmiha lu mooy ci jamonoy nelawam wa xenda duqulil waxtu salaati ak jamono waxtu dugg waxtu julli bi ana bi li an na bi ruxyatiha ndax gisam googu xen na ndaw mi ci jamono neraw tuxarrafu la ñuy xamee xukmu solaati layli ci ateeb julli guddi yi wa inda subhi ak ateeb julli suba yi tuxarrafu la ñuy xamee xukmu solaati nahaari ci ateeb julli bëccëg mu ne jigéen war ci jamono bi nga xamante ni si lay nelaw mu nemmeeku la nga xamante nii mooy mbërëgam dagg na wala daggut jamono bi nga xamante ni ci lay nelaw wala jamono yi nga xam ne waxtu julli mu ngi dugg su ko defee dafay nemmeeku rek ni nga xam ne mooy sawukaayam xool ba xam laab na wala laabut naka la koy nemmeekoo mooy dafay jël sagar daal di koy dugal ci sawukaayam su taqee dereen mu xam ne moom setagul mu xam ne payam fendeegul ki noonu bu fekkee ne nag da ko dugal ci biit sawukaayam génnee taqu dara ci deret ah su boobaa dafay xam ne moom laam na kon dafay sangu ji te julli yooyu da koy war waaye nag ci ñaari barab rek lañ ko ko mayee mooy jamono bi nga xam ne moo ngi waxtu julli yi moo ngi dugg wala jamono yi nga xamante ni si moom lay nelaw mu ne way zaaraat ndam gis na moom jigéen xalaamatu tonri mandargaay laabam xut watin ci suba wa shakkan mu sikki sàkk xal in xataa ndax dagg na xay daxa bërëgam xam nal fajar li njëkk fajar aw bax doo wala ginnaaw fajar fala yalzimuha du ko war qadaau salaati leyli fay julli guddi yooyu xata ba mu lu may mu wóor ko ne moom lu may mu wóor ko àndoon ko moom in xataa dagg na qablal li njëkk fajar bi ay si yabqa ba nga xam ne dana des maa la nga xam ne nga dana yasan dana xaj atuhur sangu wa jamin ula ak julli gu njëkk ga wa rakkaatan ak benn rakka min athaniyati ci ah, waxtu ñaareel wa maanaam ci julli ñaareel ga mu ne jigéen bu fekkee ne dafay sikk sàkk laab na maanaam moom jigéen bu fekkee dafa gis daal ne moom laab na laab na ci mbërëg ni ki gis na ñooy wala payam fendi na waaye nag dafay sikk sàkk lu njëkk fayar la wala ginnaaw fayar mu gis sikk sàkk a su boobaa julli yooyu du ko war su boobaa du war mu fay julli guddee te mooy timis ak gee waaye nag bu ko wóoree lu njëkk fayar la mbërëg mi dagg su boobaa julli guddi yooyu daf koy war timis ak gee daf koy war kañ la koy war mooy bi fekkee ne diggante bi mu daggee ak waxtu wi yaatu na yaatu goo xam ne moom mën na see sangu am ci ñeenti su boobaa dafay fay timis ga fayaale li nga xamante ni si moom mooy gee gi dafa fay timis fayaale gee gi bu ko wóoree na mbërë mi dagg lu njëkk fayar te ñeenti waxtu maanaam ñeenti rakka xañ na ci bu sangoo ba pare bu fekkee ne nag benn rakkan rek ci xaj wala ñaar rakkan wala ñetti rakkan su boobaa bu sangoo ba pare géej gi rek lay julli waaye timis ga moom du ko julli parce que lu tax timis ga moom daf koo mbërëg amma bu dee waxtu wi bu sangoo ba dana des ñeenti rakkan su boobaa dañuy xam ne kon timis ga géej gi mbërëgu ko ndax su boobaa li muy def mooy dafay jël ñetti rakkan yi sukkandiku ci timis julli timis jël benn rakkaama ba daal di ciy julli nga xamante si moom mooy gee jël benn rakka ba daal di julli nga xamante ni si moom mooy gee loolu nag mooy bu fekkee ne mbërëg bi dafa dagg lu njëkk fajar waaye nee naa la sànq bi sikk sàkk nag lu njëkk fajar wala ginnaaw fajar su boobaa kooku julli guddi yooyu du ko fay niki noonu tamit jigéen bu fekkee dafay sikki sàkk ni njëkk jant bi fenk la mbërëgam dagg wala ginnaaw ba jant bi fenkee la mbërëgam dagg su boobaa jullit suba yooyu du ko fay amaa bu fekkee ne nag xam na ne mbërëgam dagg na lu njëkk jant bi fenk dagg na lu njëkk jant bi fenk su dafay xool bu dee bu sangoo mën na cee am lu tolloog benn rakan su boobaa dafay fay jullit suba googu jullit suba googu daf koy julli maa bu fekkee bu sango bare do ci am sax benn raka su boobaa jullit suba googu waru ko waru koo fay ndax dañuy jàpp ne jullit suba googu def koo mbërëg ni ki noonu tamit jigéen bu fekkee ne mbërëgam dafa dagg lu njëkk jant bi so te jamono boobu waxtu wi waxtu waxtu wi des na lu toll ni juróomi raka su boobaa dafay xam ne kon faaw mu julli tusubaar ak takkusaan parce lu tax comme que juróomi rakkan la dafay sukkandiku ci ñeenti rakkan yi julli ci tusubaar ndax ñeenti rakkan yooyu mooy yóbbaale tusubaar gi su ko defee benn rakkan bi nga xam ne moo des ci juróomi rakkan yooyu mu daal di ci sukkandiku julli ci li nga xam ne moom mooy tàkkusaan waaye nag bu fekkee ne ñeenti rakkan rek moom moo des maanaam bu bari gam daggee bam sangoo pare ñeenti rakkan rek moom moo des su boobaa tamit tusubaar googu du ko julli ndax day xam ne tusbaar googu da koo mbër a góon léegi tàkkusaan gi ci boppam lay julli ndax ñeent rakka foofu na am na différence parce que lu tax lu njëkk maanaam bu dee gée la ak li nga xamante ni moom mooy timis lu tax bu amee ñeent rakka mën cee julli ñaari waxtu yi te bu fekkee ne nag tusbaar ak tàkkusaan la su amee euh, ñeent rakka du ci mën a julli ñaari waxtu yi parce que timis ñett la moo tax amaa bu dee tusbaar la nag moom ñeent rakka la tàkkusaan ñeenti rakkaan la moo tax ñeenti rakkaan rek bu ko bu desoon ci waxtu wi du ci mën a sukkandiku julli ci ñaari waxtu yooyu kon noonu la mu ne walakin waaye to dana woor yow mi bis boobu zaakaar bu nekkee ramadan ci weeru koor waaye wa tax di dana ko fay wa tax di dana fay bis boobu mu ne bu fekkee ne bu fekkee ne ci wàllum koor la nag su boobaa bis boobu bu dee day sikk sàkk di njëkk fayar la mbërëgam dag wala ginnaaw fayar su boobaa kat bis boobu da koy da woor dañ naan ko woor ko te it bis boobu dana ko fay bis boobu dana ko fay te bu doon julli la bu dee sikk rek dañuy jàpp ne waru koo fay parce que dañuy jàpp ne rek euh, ginnaaw fayar la mu ne wa bu dee jullik suba la fa in kaan nem nekk na a di gis alaamatu tonre yi mandargay laawam xam la tuloon chamt li njëkk fenk jant bi xay si bi xay su ba nga xamee dana jot alxuslu sangu war akaxatan ak benn rakka xam la tulooxi li njëkk fenk jant bi waja war war na aleha ci ndaw si mu ne bu fekkee ne nag ndaw si moom dafa gis mandargay laabam li njëkk jant bi fenk mooy daal mbërëgam dagg na njëkk jant bi fenk bu fekkee ne jamono boobu mu dagg moom mën na cee sangu mu des benn rakkan dafay sukkandiku ci benn rakkan boobu daal di ci julli li nga xamante ni si moom mooy suba comme niñ ko jàngale woon sànq waaw bu dee ñaar rakkan la mu julli ko amaa bu fekkee ba sangoo pare du des dara suba ba julli suba googu waru ko julli suba googu waru ko moo tax mu ne way laa lu may loolu saqata na kamaalaw shakkat ni ki bu sikk sàkk woon moom jigéen xal in xataa ndax dagg na idaha ba dëggam xabla tulooxi shams li njëkk fenku jant bi aw baxdoo wala ginnaaw ba jant bi fenkee wala tamit comme ni nga xam ne jigéen bu doon sikk sàkka ba dëggam dagg li njëkk jant bi fenk wala ginnaaw ba jant bi su boobaa julik suba yooyu waru ko su julik suba yooyu waru ko ndax sikk sàkk na nee la bu dee ci wàllum julli la moom du ko def amaana bu dee ci wàllum koor la dana ko def moom lay waaye teqale nii ñe lu tax jigéen bu dee ci wàllum sikk sàkk la li njëkk fayar la mbërëgam dagg wala ginnaaw la fayar la mbërëgam dagg bu doo koor la lu tax mu koy woor ba pare fay te bu fekkee ci wàllum julli la moom bi sikk sàkk lu njëkk fayar la mbërëgam dagg wala ginnaaw fayar la mbërëgam dagg lu tax bu dee julli la du julli julli guddi yooyu du ko fay mu ne wal farroqu lay teqale bay na soomi diggante koor wa salaat ak julli waaye su wajaba bu waree xada u sawmi fay koor xenda shakk yi ci sikki sàkka fi nqitaahi ci daggu diretu mbërëk fi waxtu niyat yi ci waxtu yéene aw baxdoo wala ginnaaw waxtu yéene wa suqóoru solaate ak rotu julli anal ay da ndëkk mbërëk yam na day tere solaatu julli ada in ci joxe wa qada in ak fay wi xilaafi sawmi wuute koor fa innama xamal ne yam na day tere moom koor ada in joxe laa qadaa waaye du caageen fay mooy lu tax nag bi nit ki di sikki sàkka euh, mbërëgam tàggul ni njëkk fayal wala ginnaaw fayal ci wàllu koor lu tax mi woor te bu paree fay bis boobu lu tax mu koy joxe bu pare fay bis boobu te bu doon ne wàllu julli la su boobaa du ko joxe mu ne koor dafay tere li nga xamante maanaam mbërëg ci wàllu julli dafay tere li nga xam ne mooy joxe julli waaye tamit dafay tere li nga xam ne moom mooy fay julli ndax jigéen gi nga xam ne yor na mbërëg kooku jamono jooju mi gis mbërëg jamono jooju ah, julli waru ko ni ki noonu tamit bu demee ba nga xamante ni mbërëg ma dagg na ay julleem waratu koo fay wuuteeg ki nga xam ne wuuteeg koor ndax bu fekkee ne koor la moom jamono bi nga xam ne mu ngi gis mbërëg jamono boobu dafay tere mu joxe julli gi maanaam mu julli julli gi ci waxtoom waaye nag bu demee ba nga xam ne mbërëg ma dagg na ah, su boobaa julli yooyu da ko war a fay kon boo xoolee mbër moom koor la gën a diisal ci li nga xamante ni moom mooy wàllu julli mbër koor la gën a diisal ci wàllu julli kon mbër dafay tere joxe li nga xamante ni moom mooy koor mbër ak dafay tere joxe li nga xam ne moom mooy julli buñ ne nag mooy def ko ca waxtu wa jamono bi nga xam ne mi ngi gis mbërëg jamono boobu sañatu julli mbërëg gi tere nag mu julli jamono jooju mi gis mbërëg mbërëg gi tere na ko mu woor waaye ndax dana ko fay wala du ko fay bu demee ba nga xamante ni mbërëg ma dagg na mbërëg moom dana nangu mu fay kooram googu waaye mbërëg ma du nangu mu fay julleem yooyu kon jigéen bu gisee mbërëg ba mbërëgam dagg julleem moom du ko fay waaye koor daf koy fay kon koor la gën a diisal ci li nga xamante ni si moom mooy wàllu mbërëg loolu moo nekkoon sunu dar su tay bi lépp li ci jub ca yàlla la waaye lépp li ci dëng si ñun la ak sunu ñàkk fasaa ak sunu néew gëstu in uridu ila al islaaha mastataxtu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu